Cameroun compétition moom ñëpp xam nañ leen euh, équipe la boo xamante ni même bu fekkee ne sax du ñu wane li nga xamante ni mooy lu extraordinaire mais équipe bu metti lijjanti la parce que ñoom dañu am mental ils ont un mental de fair loolu moom c'est camerounais quoi ay xool sax boo xoolee Coupe d'Afrique 2017 kenn misé wul woon ci ñoom ñuy buuxante di buuxante di buuxante ba dem gagné coupe d'Afrique ba gagné ñu sax en quart de finale. Mhm. tey Sénégal mënoon moo ko mënoon fuuf. effectivement donc équipe la boo xamante ne amical seetaan naa match bi passé Sénégal nag moo ko mënoon sur tous les plans tous les plans même physiquement sax dama gis jour sénégalais sax ñoo gënoon a taxaw. Mhm. mais match amical la match amical la mën nañ ne am nañ ci jot nañ ci gis am ci ay tuuti certitude mais ça reste un match amical. Mm -hmm. compétition c'est autre chose. te ñoom fu ñu toll nii natt nañ seen bopp gis nañ ne war nañu gën a liggéey pour lijjanti Sénégal parce que gis nañ ne Sénégal lu mu leen dominer ci match bi même si fekkee ne but benn but rek nañ leen nañ leen nañ leen kii te du but bi c'est pas en cours de jeu c'est un c'est mm-hmm. loolu tamit mën naa wax ne mën na dalal seen xel parce que Sénégal lu mu ko dominer dominer 1-0 rek la ko la ko gagné. bu mm-hmm. ko gagné woon 3-0 4 peut-être que pression nekk si ñoom mais 1 nañ leen gagné. Mm-hmm. donc euh, ça veut dire que peut-être gap bi sorewul entre deux deux équipes yi mais encore une fois euh, la pression reste chez eux parce que ñun ñooy champion d'Afrique. Mhm. ñoo leen mujjee gagné. waaye tamit seen équipe amoon na ay manquant parce que Zambo Anguissari. ñëpp xam ne leen c'est le patron du milieu de terrain moom mooy celui qui donne le ton c'est le mhm. titulaire à Naples. Mhm. et puis il y a aussi Choupo-Moting qui n'avait pas joué. c'est des le résultat était là mais daal Cameroun lu ma la mën wax daal mooy match amical bokkul ak match euh, euh, comment on dit mhm. te je pense que deuxième match Sénégal bi suñu deuxième match contre ñoom mooy match de qualification soit ñoom soit ñun mhm. waaye mooy match boo xamante ni kenn suñu ñaar dina dina dina dina qualifié à mhm. partir de sa match la mais bonoon yow bu sàng match bi match amical bi bonoon maanaam xayma euh, failles yi nga xamante ne Cameroun war nañ ko war waroon nañ ko te Sénégal war na ko mën a exploiter suñu deuxième match. oui mais bi mooy euh, niveau déjà des côté je pense qu'on était beaucoup plus fort que ñoom ci côté yi ñoom seen côté des na parce que boo xoolee ba xool man bokk na ci match yi Sénégal ëpp lu mu def centre parce que avant daan ñu centré on n'avait pas de bons côtés depuis Saliou Ciss. Mm-hmm. depuis. Euh, la coupe d'Afrique la mm-hmm. depuis ba moom ba mu ñëwulee. on avait un problème de débordement et de centre. mais tey boo xoolee Crépin il a eu beaucoup de centre boo xoolee euh, Jackson. il a eu aussi beaucoup de centre donc surtout seen côté yi je pense que am des na tuuti. Mm-hmm. ñun ñoo leen gën a force sur les côtés. mais ñoom it am nañ ay atouts yoo xamante ni au niveau de de seen attaque euh, axiale euh, am nañ ay ay ay quelques mini occasions yoo xamante ni xaw nañu ci perturber tuuti. mais yooyu tamit c'est des à eux à eux donc ñu ñu bañ leen ko ci euh, woon quoi dañ leen ko nangul en tout cas ku ci nekk am nga ay atout boo xamante ni ñun au milieu de terrain on était beaucoup plus fort mm-hmm. parce que Nampalis ak euh, kii ak euh, Sarr Pape Matar Sarr donc ils avaient carrément dominé le milieu de terrain mais encore une fois Zambo Anguissa nekk fa woon. Mhm. c'est vrai que lui aussi c'est un joueur de classe mondiale parce que il joue la Ligue des Champions il est avec Naples donc euh, il a confirmé que vraiment même coupe du monde bi ça été l'un des meilleurs euh, Camerounais mhm. bon configuration bu différente la mhm. lay doon vraiment la on va être sur un match officiel euh, match boo xamante ne la dóor toog peut-être lay doon wala def résultat bu baax confirmé par rapport à son à ton premier match et tour quoi donc du boo xamante ne dañ ko dañ ko war a minimiser. Mhm. dañ ci war a def fulla ak fayda déjà pour assurer euh, suñu suñu génn quoi.